li lépp maa ko fi xaar ba mu fekk si ma xam nga nit ñi dañuy gërëm seen jëkkër mais man dama am far bu mat far lii la ma kalambaay defal cent trente mille si junni bi ak sama lëndër trente ak sama lëndër trente li xale yi bëgg di wër jëndee ko cent trente cinq mille frontal xale bu ma tolloon jamono bàyyi na ma maas jéegukat jigaar baa ngi nii toog lu waay ragal lu ne dalay blessé lii la ma sama copain defal eh ragal féete day xañoo wërsëg ah. maa ko daan fóotal di ko yàqal di ko defal ay petit déjeuner di ko wax wax du neex lii la ma sama copain defal ci jullit bu cent trente cinq mille lëngër trente teg ci cent trente mille barki sëñ Ousmane Mbacké noo réew mi nekkuma fi nag di ko ndamoo moo ma ko defal moo tax ma wax ko